rafetal na ko soxal ba pare denc bal donc askan wee ñu dénkoon nañu soxleen mooy ci pré ci présidentielle bi jox ñu une majorité avec 54 pour cent macha allah donc loolu ma masta am fenn léegi nag bal bi rek lañ leen di laaj ngeen teg ko suñu loxo ñu jox ko suñu jàmbaar yi te man dama leen wóolu lool. gis nga man pratiquement déggootuma déglootuma télé seetaanutuma télé déglootuma débat politique déedéet. parce que ñi ma jiital man dama leen a wóolu damaa xam ñoom fan lañ toll ci réew mi ak lan leen lan la leen réew mi jaral moo tax diversion yeeg ak dénigrement yeeg campagne te diabolisation yi on a la page nañu wóolu suñu gars yi nañ leen wóolu bu baax dafa am ay jamono mbir mi metti woon lool ma ñëw ba ci nopp grand bi daal di sëgg na ko grand sonn nañ Birame Souleye laa na ko grand lu xew mun ma booy man quoi mun ma faites-nous confiance faites-nous confiance xam nañ bu baax lu ñuy def dem leen liggéey rek ci terrain bi li ci des ngeen bàyyi ak ñun ñun fi ñu réew mi toll ñun xam nañu te bi ñuy waat seen waat bu sell boobu ñoom ñëpp man damaa toog te yàlla leen ni nattu saa su nekk ñu koy nangu di ko jaamoo yàlla ba liy ñëw tey te jàpp naa ni incha allah sénégalais yi xam nañ bu baax li xew dinañ jël seeni carte may leen ko votal leen au di du 17 novembre ñu jox leen une majorité écrasante pour ñu mën a doxal seen projet réew mi gisu seen bopp bu baax a baax yàqkat yi nag bari nañ ñiy wax bari nañ mais ku mel ni yéen doon ay kilifa amul njaboot yaakaar nañ leen ci ngeen def éveil des consciences donc dénk nañ leen suñ bopp comme nuñ ko yàggee def parce que ñu ñëpp seen njaboot lañ Birame Souleye kenn la ci yow man xam naa ci lu bari donc ak ñu mu àndal ñëpp donc ñu lay feddali kóllëre rek di la dénkaat suñu bopp di la dénkaan njaboot gi tey nag fii la ñu mujjee ñu def nag vrai véritablement tey caravane bu yaatu activité bu yaatu njabootu Pastef gépp génn coalition bi ñëpp génne magu Pastef yaa ngi fi jeunes yi femmes ak ñëpp donc mu doon nag vraiment journée boo xam ne marqué nañu parce que bi ñu wootee ñoom ñëpp liñ jàppoon bàyyi nañ ko ñëw fekk si ñu te ku ci nekk rek boo xalee boo xalee xolom donc victoire rek ci nekk yéene bu rafet a ci nekk te yéene boobu weesuwul mooy jàppale suñu état jàppale suñu gouvernement jàppale suñu premier ministre notre ministre biram Souleye ak le président Bassirou Diomaye fay ñu doon ay jàmbaar nag ñoom nag ñu leen di ñaax rek comme ni ñu ko Birame jàngale woon dinañu ñukki joxe dinañ ñukki ñukki mooy donc def ay pa dem donc vers les populations porter le message dinañ également ñaq donc ñett yooyu la ñu yàgg dégg te biñ ci jaaree ba léegi amuñu ci benn rëcc parce que ñoo ngi ciy gis véritablement ak jaamu yàlla gu wér te jàpp nañ ni yàlla incha allah donc du ñu neenal lii ni ñu nekkee donc yàlla dinañu defal ndam lu rëy rëy rëy rëy allah ñu bokk lépp di leen wax rek ne leen donc liggéey bi dafay continuer suba ñoo ngi prévoir woon dem marché central mais sànq rek maa ngi ci waxtaan ak waa communication ak le secrétaire administratif xam nañ ni loolu dañ koy sursoir def suba porte à porte pour préparer la caravane départementale bi war a ñëw gannaaw suba le dimanche. très mu nekk donc une activité d'envergure ñun waa zone ñu ñun ñooy recevoir donc le candidat Amadou Ba et tous les investis yi nga xam ne ñoom ñoo ngi ci liste bi donc dëkk Thiès donc na ko ñëpp waajal. lii nga xam ne tey def nañ ko tey en terme de mobilisation bëgg nañ dimanche mu mat ko fukk donc mat sànq rek moom may wax na ma yiñ doon xaar wàllu t yeeg yooyu yëpp ñëw na donc flyers yi doy na sëkk donc nañu def sensibilisation jàllale information dimanche fi fi ñu war a daje ak fi ñuy déparé dinañ ko wax ñëpp pour que ñu xam ni Thiès Nord taxaw na te mosu leen a des ginnaaw commune yëpp leen naw foo leen defee mobilisation génn ñëpp bëgg leen toppandoo parce que tout simplement seen détermination la ak seen engagement donc moo ngi guddi xanaa ñu delloo kàddu gi rek mais sañuñ nag dem te tàllaluñ suñu loxo sang bi nga ñaanal pour lii ñu jëm yàlla defal ñu ci ndam lu rëy te yàlla buñ ci rëccu dara incha allah salaamaaleykum wa sonn ngeen tàyyi ngeen damm ngeen nag bu réew mi méttee yéen koy njëkk a yëkk jigéen ñi ñooy xolu réew mi yéenay jaay yéenay jënd yéenay lijjanti kër yi yéenay toppatoo ndaw ñi kon ay formation da leen a war jigéen bii ñu bëgg a mu dem assemblée bëgg naa nekk jigéen boo xam ne day taxawal Sénégal day taxawal waa Thiès waaye day taxawal waa Zor Nord waaye nag jigéen ñi duñ ci des ginnaaw nag jigéen ñi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo xeexal projet bi ba mu yegg si fii te amuñu ci dara amuñu ci dara kon nag formation lu war la ci jigéen ñi waaye ginnaaw formation dañ leen a war a gunge gunge leen mooy lan jox leen ay financement nag boo gungee nit ba pare boo boo defalee nit ki formation ba pare danga koo war a gunge jox ko loo xam ne ci lay mën a nag liggéey mën a dimbali boppam nag jigéen ñi bu ñu amee yërmande ñoo ko ëpp borom kër yi dañuy daal di xam ne ñoo yor nañu nag lu ñu leen jox bu ñu leen joxee mille francs jël ngeen 1000 francs teg ci ngir ceeb bi niin kon nag jigéen ñi gàcce ngaalaama ñu ngi woo suñu moroomu jigéen yëpp di woo mbokk suñu suñu suñu mbokk ndaw yëpp jeunesse bi waaye it di woo bu baax a baax mag ñi Pastef bàyyiwul benn couche nag ci biir Pastef am na magu Pastef am na la jeunesse muy GPS bi am na jigéen ñi ñëpp a ngi ci biir ñu ngi woon ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci ci guddal bi jër ngeen jëf waa Kër Modou Ndiaye. nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm man maa ngi tudd Abdou Sagne comme ni leen ko monsieur le maire waxee nekk investi nekk silmaxa nekk handicapé ngeen war cee dégg nii bi nga xam ne moom la premier ministre président Ousmane Sonko di defar la liste ànd ko ak waa Pastef daf ci dugal couche yëpp dugal ci ndaw ñi. dugal ci mag ñi dugal ci góor ñi dugal ci jigéen ñi dugal ci artisan yi dugal ci enseignant yi waaye dugal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy handicapé yi ñu nekk juróom benn nit ci biir liste yi kon loolu solo si moom lañ leen doon wax yàlla dafa def nag dañ koo séqu nag ñoo xam ne 1960 ba léegi dañu fee nekk di yàq di yàq di yàq ba 2014 yàlla dogal mbër feeñ ànd kook ay mbër yu mel ni moom bëgg a taxaw ngir defar di defar ba 2021 ñu dugal leen ci ay tolof tolof ñu riposté di xeex di xeex di xeex ba yàlla jotale leen ci réew mi teg liste bu toll nii tàmbali sumb bu njëkk bi te trois euh, première mi-temps bi yéen yéen a fexe woon ñu gañe ko moo tax ñu bëgg a jaara gi jaaraat ci yéen ne fi ñu jàppoon ba mel nii duñu ko bàyyi jig nañu parce que bañ ko soxlaa dañoo ñëwoon ci yéen ngeen fotal ñu président kon ñëwaat nañ ci yéen jàppaat leen ci ñu am une majorité écrasante et éclatante incha allahu rabi pour mën a jël assemblée jërë ngeen jëf. donc tey nag dañ fi ñëwoon euh, ci mbiru campagne législative euh, bu 17 novembre 2024 ànd ak suñu. monsieur le maire Mouhamadou Diakhaté ñëw fi di ñaan rek li nga xamante ne moom lañ defoon ci présidentielle yi 2024 ñu defaat ko muy am une victoire écrasante et éclatante à l'Assemblée national loolu nag li tax ñu bëgg ko yaakaar naa suñu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak monsieur le ministre Ousmane Sonko wax nañ ko mooy projet bi nga xamante ne tegal nañu ko muy référentiel bi di vision 2050 loolu buñ ko buggee doxal il faut que ñu am une majorité à l'Assemblée nationale donc dañ leen si woo waa Kër Seyim Doy ñu def comme ni nga xamante ne noonu lañ defoon rek ci élection présidentielle 2024 donc monsieur le maire mii di Mouhamadou Diakhaté dañ koy sant di ko gërëm ndax ku ne xam na ni démb Kër Seyim Doy leer na naññ macha allah. indi na ay làmp yu bari koñ yi fépp fu nga xamante ne nii amoon na ay euh, amoon na lëndëm lëndëm maanaam mun nañ wax ni leer na te dañ ko siy sant di ko ci gërëm macha allah te ku ne xam na ni des na parce que moom avant muy nekk maire dafa mus a nekk au côté de la population ku ne xam na ku xam Mouhamadou Diakhaté xam ni si loolu la nekk te ci loolu lay continuer waaw macha allah moo tax dañ leen si sant aussi di leen ci gërëm te di ñaan yàlla euh, le 17 novembre 2024 ñu mën a am ñu mën a am une victoire écrasante. fii lañ nekkoon ak Birame Souleye nekkoon nañu moom te nekkin bu rafet ah Birame Souleye dem jaxate ñëw Birame Souleye def ñoo dénk jaxate ñun délégué délégué de quartier yi zone nord. dinañ ko jàppale bu baax a baax ci liggéeyam waaw di leen ñaanal nag yéen tànk yi ngeen di dox ci élection yii waxoon naa ko biram ci élection yi ba ñu ñëwee fii poñen dalal leen xamaloon nañ ko nag bu leen tëddee na nelaw ndax lii ñu gis euh, am nañu yaakaar ne di ngeen ci génnee ndam te lii ci élection yii aussi comme ki jox ne leen ndam ci élection présidentielle yi laaj na ñu jox leen majorité à l'Assemblée nationale ndax li ngeen yéen yéen gi ngeen am ci Sénégal ngeen mën koo doxal te loolu nag fu mu mën a amee mooy ngeen dugg ci gox yi di waxtaan ak askan wi te li ngeen def nii yoon wu baax la maa ngi leen ci encouragé di leen jàppale di leen ne nag du leen wax nag poñam yëpp a ngi seen gannaaw waaye nag ah bëgg a dox réew mi dox yaakaar naa ne euh, li ngeen soxla li euh, gouvernement bi soxla war ngeen ko teg ci loxoom ndax mu mënal liggéey Sénégal loolu daal laa amoon lu mu leen di wax lu may wax ci seen ñëw fii di leen souhaiter nag euh, majorité bu baax assamble nationale ndax moom la ñu bëgg te bu ngeen ko amul liggéey bi day sooxe kon nag ñu ngi leen di ñaanal a ànd ak garab waa Poñan yëpp yaakaar naa ne di ngeen fi am majorité ci dëkk bi incha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant nekk na site boo xamante ni day màgg di dem kanam donc nag site buy màgg ah autorité autorité yi nekk dañ koo war a sóoraale ci wàllum éclairage problème bi yu leer yi moom monsieur le moo fi jaar ci veillu Saint Thérèse bi donc dama donc nag nee na sànq am lu des te noonu noonu bi mu ñu mayee audience ñu dem di ko seeti moom euh, donc euh, wax nañu li ci jëm ah wax nañu ko ni ko dëkk buy màgg insécurité bi day gën a yokk donc euh, semaine yi passé rek am na benn femme bu ñu agressé fii ba cëkku Ndar Kam donc nag ñu ngi ñu ngi lancé appel autorité yi fi teew monsieur le maire ñu ngi lay ñaan li longe tali bi dem ba ci station bi dem ba Kër Modou Ndiaye éclairage bu fa mënee am parce que suñu xale yi 19 heures déjà la ñuy wàcc te bu ñuy wàcc day fekk mu guddi donc parent yi soo obligés ñu leen di gàttandu fële ci arrêt ba parce que attaques yi actuellement commencé na gars yi ñu ngi attaqué ak jakarta yeeg jaasi yeeg ñoom seen te wa wax dëgg si yàlla jigéen moomul jaasi voilà góor aussi moomu moomu ko donc nag ñu ngi ñaan insécurité bi fi tàmbali yàgg na fi am sa donc euh, ngeen kii ko donc euh, euh, li may wax di ñaax waa jasab ñii def nañu caravane waa Pastef ñëw seeti leen ndax taataan si yéen seeni carte yaakaar naa élection législative la ñu wax suñuy député zone nord bi ak département bi il faut que ñu ñu leen di côtoyer ñu xam bu baax comme ça ñun bu ñuy sànni suñuy carte ñu xam ñan la ñuy sànnil comme ça buñ ñu toogalee fële wax dëgg si yàlla ñu ñu ñu taxawuñu bu baax donc euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant